mbokk yi jërë ngeen jëf ci seetaan bi ngeen ñuy seetaan di ànd ak seen site bi wax sunu actu ñu ànd ak yéen ci naafila weeru koor ñu di ko jëlee ci téere Serigne son bi ni wax xoratul xay ni tey jii ñu dikk ci guddeeg fukkeel ak juróom-ñaar fukkeel ak juróom-ñaar dinañ ci julli fukke rakka ak ñaar rakka bu nekk ñu jàng ci fatiya ak inaa ina ansalnaahu ak xul huwallaahu lu ci nekk ñaari yoon mbokk yi ñu dellu siwaat baamtul leen ku guddik fukkeel ak juróom-ñaar dinañ ci julli fukki rakka ak ñaar rakka bu nekk ñu jàng ci fatiha ak ina ansalnaahu ak xul huwallaahu lu ci nekk ñaari yoon ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci teewlu gi ngeen ñuy teewlu yaa ayuha alladina aamanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala min qablikum laallakum tattaquuna ayaaman maadudaat yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qiraat taahaati wa sadadi